Aha! joxul la de Ama Ama daa daa Ama daa yab man fu mu ne nii kenn du ma wax loolu ci moom sax na dof la kooku moom démb laa xam boo gën Seydina Mouhamed li wax nii tumaani barki Seydina Mouhamed Ama Baldé bu la ci. tumaani Ama sëñ bi laa du te ay kaf la koy jëlee. tumaani booy wër booy wër immature. soo amul dara dof xale la de da lay rey ba noppi nan la baal ma. bu ma ne avant ah, ah, dóor xoolal yooyu bu la ko Jacob wonee avant avant avant may tëj buntu avant dafa maa dóor dóor yoo xam ni léegi dóor yi doyu ko muy génn di dem jëli ndomba ndomba ndomba ma tëj buntu. loolu yi ñaaw mu jël ngandi kuur kuur kuur. ma mm. dóor ci veeru kër gi veeru veeru buntu pour toj veer yi laajal lu tax nga daan sama copain nan la lu tax nga daan sama copain. waaye moom kaasu lu tax ma daan alaaji mbay de. moom lu lu tax na ma toog télé nag am na solo macha allah en tout rafet la. mais day yee day yee rek waaw. Mhm. monde làmb la lii war a yee. Mhm. loolu loolu yëpp ama. Mhm. ari ari tool ñu man. dëgg la macha allah. lu mu wax. dafa taxaw si télévision yi ne. waaw sasoo na chaque màggal téeméeri nag. kon bu la nee bàyyi ma ma dem. bàyyi ko dem parce que amul toogaay. loo wax yow ah, eh, lu des ci màggal. ñaata ñaata si des. saa ñaata ah, rek saa ah, suba. bu doon suba bu eh, eh, ana moo gét. ñun nag moom nga def la am am leen na am na fu mu koy moo gët PDC bi ci Amérique moo gët lam fort de Amérique lam fort de New York ah loolu la wax yàlla